ci présidentielle bii ñu weesu coalition Sonko président moom la ñu euh, euh, yoroon ñu am ci benn candidat muy le président Ousmane Sonko ah def itam euh, résultat yoo xam ne foog naa ne ñëpp gis nañ ko résultat yu mucc ayib donte sax ah liñ ci gis daanaka dafa am lu ci ñuul waaye bi loolu weesoo. suñu jataay bi dafa toog waxtaan jàpp ne war nañu ah jéggi présidentielle bi dem ci yeneen i njongante ngir rek li nga xam ne moom la ñu sabab ñun ñëpp bokk ko muy suñu programme bi nga xam ne moom la ñu woyee jot na foog naa ne waxtaan nañ ci bu baax ci présidentielle bi ngir programme boobu ñu fexe ba indi ko jot euh, réew mi jot ci bi ñu tënkee loolu ba pare ñu ne kon nag nañu taxawalaat beneen coalition boo xam ne ñii newoon ca coalition Sonko président ñoo ciy nekkaat waaye nag dañ koy gën a yaatal ndax mbir mi ah dañ koy pencoo ah tey kon coalition jot na président taxawaay bi mu nar a am moo di bépp xeex bu ñu war a am bokk kook askan wi ngir ñu jot li nga xam ne mooy seen liberté individuelle maanaam li nga xam ne mooy seen ak seen yelleef ñu mën koo xeex ànd ceeg ñoom ak bépp mouvement bi nga xam ne mu ngi am taxawaay boobu ah rawatina nag xeex bi nga xam ne ñu ngi koy def ci àll bi ngir suuf yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a saax-saaxe ñuy gërëm bu baax ñi nga xam ne ñu ngi ndéngaleer ma xam leen bu baax itam ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi yeneen dëkk yi mel ni toobeen ak yeneen ñi nga xam ne ñu ngi xeex ngir sàmm li nga xam ne mooy seen moomeel dañu bëgg itam am taxawaay bi nga xam ne lépp li nga xam ne gouvernement bi daf koy dogal mu doon dogal boo xam ne euh, euh, euh, dafa waroog li nga xam ne mooy li jub dinañ ci taxaw xeex ko dinañu itam taxaw ngir sàmm li nga xam ne mooy kaaraange suñu askan ndax gis nañu ne tey askan bi mu ngi jànkonteel loo xam ne métti na lool muy jafe-jafe dund waaye itam muy a ah, euh, buntu xatal yi ñu leen di def ak yenn rey ak euh, ñaawteef yi ñu leen di def yu ñaaw yoo xam ne mu ngi wéy di jéggi dayoo a ah, dañu xalaat ne Covid bi maanaam feebar bi warul tax ñun homme politique yi ñu taxaw rek di xaar. tey la wàllo gën a ay kon tey la ñu war a am taxawaay bi gën a dëgër ngir suñu askan xam ne ah ñun dañu bokk itam ci euh, xeexkatu réew mi ngir aar li nga xam ne moom lañu ñu bokk ñun ñépp ci xeex boobu ñu ngi ci dolli gërëm bu baax ñi nga xam ne ñu ngi ci euh, kërum fajukaay di wax ne tey ñoom ñoo nekk ci xeex bi janoog mbas mi ñu ci bari ci ñoom sax fi mu ne nii dañu jànkonteeg feebar bi ba daanu feebar ñoom ci seen bopp mu doon loo xam ne ñu ngi koy métti lu bu baax a baax a baax di ci nag dut baaraam gouvernement bi di leen wax ne bokk na ci li ngeen leen joxul a jumtuwaay yu doy moo tax ñu ci bari ci ñoom fi mu ne nii di feebar kon nag li li professeur Touré wax ci jamono yi passé ak ñeneen ak ñeneen wax hôpital Ourossogui hôpital Matam hôpital Ziguinchor nga xam ne ñu hôpital yooyu yëpp ak yeneen hôpital tey ñu ngi euh, am ay jafe-jafe yu tar ndax ñàkkum jumtuwaay ñu wax président de la république responsabilité am la tey mu am taxawaay bi war ndax suñu ñi ñuy faj bu ñuy feebar ah kon de dañu xamatul ñan ñooñooy ñooy fajati. rawatina nag ci bi nga xam ne am na benn spécialiste virologue foog naa ne sànq ayib wax na ko nee na bootul ñaari téeméeri junniy nit dina ñu faatu Sénégal balaa ñuy toll ci pic bi maanaam ci kawe kawe bi waaye dina am ñeneen ñu faatu encore le temps ñuy wàcc kon xam ngeen ne loolu nekk na lu jéggi dayoo te bépp nit ku faatu jàppaleen ne borom kër la wala koo xam ne xaj na euh, jàngal nañ ko ba mu war a tekki. mu doon loo xam ne bépp bakken bakken bu am solo la bakken bu ñu war a aar la ñuy profité nag di wax askan wi ne leen liñ leen di wax ci geste barrière yi maanaam di sol masque yi gis ngeen sama masque baa ngi nii sama waxu micro bi moo tax ma wàcce ko mais masque yi ñu leen di wax ngeen di sol na ngeen koy sol ndax yéen xale yi sax yéen ndaw yi sax tey scientifique yi wax wane nañu ne donte sax mun ngeen bañ a tëdd waaye bu mun ngeen toog ay diir rek mu jàpp seen dënn bari na tey ay ndaw yoo xam ne mu ngi jàpp seen dënn ba dox sax mënatuñ ko kon nag na ngeen jàpp ne ñun ñëpp dañu nekk en danger ñun nag dinañu fas yéene fépp fu ñu dem dolli wax jooju pour que nit ñi comprendre ne mbir mi du caaxaan mbir mi mu ngi fi di wax nag ne suñu taxawaay ah dina nekk aussi taxawaay politique pour ñu wax président de la république ne lii nga xam ne moo di élection locale yi mënatuñu koo dàq Covid mënul tax ñu dàqati ko ndax am na ay réew yoo xam ne organiser nañ seen élection kon nag dañu war a organiser élection ba nit ñi xam ñan la ñuy tabb ndax dañuy tabaat ñi fi ne wala ndax nañuy tabaat ñeneen ndax dàq nañ ko foog naa déjà ñetti yoon ñu bëgg itam wax ne suñu coalition jot na dina am taxawaay ci wàllum. Afrique ndax nag ñun ñëpp Afrique ñu ngi ci xeex boo xam ne tey ñun ñoo ko bokk gis ngeen mu am ñaari réew yoo xam ne tey muy Côte d'Ivoire muy Guinée seen président fas nañu yéene amaat ñetteeli mandat mu xam mu doon loo xam ne dafa waroog seen constitution ñu ne ñun nanguwuñu loolu te ñu ngi ci wetu population yooyu pour ne leen ñun de far nañu ak yéen ci xeex boobu ndax fii mu ne waratul am benn réew ci Afrique boo xam ne dañuy jalgati li nga xam ne moom mooy suñu sart yi te sart yi amul amul ñett amul bi bokk ci woon amul ñaari mandat la ñuy wax ñaari mandat bu weesoo da ngay taxaw kon nag ñun loolooy suñu taxawaay te duñu nangu ñuy noot li nga xam ne mooy àq ak yelleefu euh, euh, africain yi waa Mali nag dañ leen bugg a beral loxo ndax gis ngeen Soumaïla Cissé nekk euh, koo xam ne mu ngi doon jongante pour présidentielle bele passé mu doon koo xam ne kilifa bu am solo waaye dañu koo jàpp ay samba yi dañ koo jàpp yóbbu ko kenn xamuñ fu ñu ko yóbbu te tey ba léegi kenn xamul ndax mu ngi dund am déet te li ñu jaaxal mooy amul benn président ci Afrique rawatina ñi nga nga xam ne ñooy président wu Afrique saw jant ñoo xam ne ñu ngi ciy àddu ñu koy ñaawlu bu baax nag ndax nag donte mu ngi ci opposition a ah, kilifa la te nit la kon nag lu mel nii bu amee mu doon loo xam ne jombul kenn jombul benn homme politique ah bu amee ci réew mu mel ni Mali ñu war nañu taxaw rawatina ñi nga xam ne ñooy président de la république yi pour wax ne lii nanguwuñ ko ba pare nag def seen kéem kattan pour que. kooku nga xam ne dañ ko jëlee ci famille am yóbbu ko fu kenn xamul ñu mun ko faa jëlee delloo ko ci waajuram bi ci des mooy ci wàllu Afrique dafa am euh, loo xam ne dañ ko sumboon mbas bi ñëw xaw koo jaxase tuuti mu doon li nga xam ne mooy Zileka Zileka mooy ñu boole ci réewu Afrique yépp mu doon maanaam benn say rek boo xam ne ñun ñëpp dañuy bokk koom bi di mun di di di di dugalante di gëlalante di jaayan di jaay suñu suñuy mbir yi te duñ ci teg ay taxes ak yu mel noonu pour que daal développement bi mun a yokk ci biir Afrique ci suñu biir loolu ah sumboon nañ ko waaye dafa xaw dafa mel ni lu xaw a tàggatémbe ñuy wax nag ne dinañ am taxawaay bi pour saytu affaire bi ba xam fu mu toll ngir ñu wax suñu askan fi yëf yi toll ba pare nag ñaax suñu kilifa yi ñu mun a jëm kanam. bi ci des mooy ci wàllum koppar bi xam ngeen ne franc fa dañu toll foo xam ne day ren lañu ko war a dakkal dem ci beneen i koppar waaye nag li ci ñuul mooy président France muy Macron ak président Ouattara muy euh, bu Côte d'Ivoire dañoo ne ne franc CFA bi dañ koy tuddee maintenant ECO waaye ECO dafa fekk ne waa CEDEAO maanaam réewu sawu jant ñoo ko njëkkoon a tabb ne bii mooy nekk suñu koppar ñale ñëw ne deet ñun ñoo ko jëlagum niki suñu koppar mu doon loo xam ne indi na jaxasoo boo xam ne waa Nigéria nga xam ne mooy réew mi gën a am euh, doole ci suñu réewu sow jant yi ah Nigéria nanguwu ko Ghana nanguwu ko ak ñeneen ak ñeneen kon nag taxawaay bi war pour ñu am ci euh, lu leer dinañ ko am ngir ñu wax suñu askan fan lañ ci toll itam ngir ñu jox suñu position ci naka la mbir yi war a tëdde ah may daaneel nag di wax ne ñun de coalition jot na li tax ñu tuddee ko jot na moo di dañu jàpp ne réew mi toll na ci ay guddi yoo xam ni kenn ci citoyens yi warutul waratul a toog na ñi nga xam ne dañ leen di woy les forces yaa xam da nga am ay mouvement yaa xam ndax yaa ngi yëngu ci koom gi yaa xam ndax yaa ngi yor ay kuréel waaye force vive yëpp dañuy war a taxaw tey ngir défendre li nga xam ne mooy suñu moomeel li nga xam ne moom la ñu bokk foog naa ne suñu programme bi euh, nii dañ ko ne jot na euh, nu ñu ko tuddee encore li ñëpp bokk ñëpp jot ci kon nag loolooy suñu taxawaay di dalal xelu ñëpp ne leen coalition bi ah yéex na wax nag waaye li taxoon mu yéex a wax du dara lu duloon dañ doon préparé wu ngir ah, bu ñu xasee ba lancé machine bi mu doon loo xam ne ah du doon euh, euh, doxu caaxaan di leen jaajëfal bu baax